الأمين وعلى خير خديمه ذي الحبل المتين وعلى من اقتفى آثارهم إلى يوم الدين بك جلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gannaaw bi nu santee suñ borom subhanahu wa taala julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal Cheikhul Xadim moo ngi nuyu di leen ziyaara di leen ndokkee ci bis bu tedd bii ci barab bu tedd bii di ñaana Seex Muhammadu ñil Muntaqa suñ borom bàyyil na ko fi defal ko ak wér ba mu mot li mboolem ay naalam ak yéeneem di ko ñaanal njaboot gépp waxtaan yi dañ koy jëmbale ci li ñuy tudde xidma xidma nag baat la bu yàgg jiitoon lislaam di baato arab waaye li sëñ Tuubaa nag jëfandikoo ko lu baree baree bari ci ay mbindam ba liggéey bu mu ci liggéey tax na mu mujj tuxu ci aw turam abdullahi wa xadiimu rasuulihi nga ne baatu xaadim ak baatu xaadim yépp ñu ngi jóge ci baatu xidma li muy tekk ci luxa mooy liggéey booy liggéeyal kaneen man defaloo ko sa bopp moo xam nag yaa ngi cee jël ak pay wala jëloo ca ak pay waaye su ñu ko waxee ci anam bu tasawuf nag wala ni ñu koy jëfandikoo ci yoonu murit mooy jëf joo jëfal keneen waaye sàkkoo ci pay gu teew liggéey bi nga liggéey di ko defal keneen te jëm yàlla dong tax nga ne nga xam ne ngërëmal yàlla ak payug ëllëg nga ci soxla loolu mooy ma ci tënk muy lu yaatu waaye mën ko séddale ci ñetti xaaj ci anam gi ñu gën a jege mën nañ koo tudde liggéeyal yàlla mën nañ ko firee noonu xidma mooy liggéeyal yàlla liggéeyal liggéeyal yàlla nag am ñetti anam bi ci njëkk mooy nga liggéeyal yàlla liggéey bu jëm ci di ko ñaareel mooy nga liggéeyal yàlla liggéey bu jëm ci mbooloo mi di ko ñetteel mooy nga liggéeyal yàlla ci nitu yàlla su dee bi mu njëkk a tudd mooy liggéeyal yàlla ci diineem suñ delloo ci alxuraan ak sunna moom la ñu tuddee aljihaadu fi sabilillah mooy jihaar ci yoonu yàlla te mooy ki jël bakkanam ak alalam ak dooleem lépp jox ko yàlla ngir ëllëg yàlla fay ko ci aljanna in allah ashtari min al muminin soo jàngee aay jooju loolu lay loolu lay firndeel ci wax gi suñu wax ne yàlla nangu na jënd bakkan ak alali way gëm li ko ko jaay ngir mu fay leen ci aljanna soo liggéey ci sàttum nag ñu di ko xeexal ci aw yoonam di nangu seeni bakkan di ca rot ñoom ñu ca ñoom ñu ca rotal bakkan yëfër lépp ngir yëkkati kàddu lislaam ak suufeel baatu kéefër kon jullit lal lal day jaayante jaayante nag mooy su fekkee ne li li nga am xas ka ko jaay day séentoo jóg cig njëg kon day mel na nga jaay moomutoo ko kon bu jullit bi xasee ne ashhadu an laa ilaha illallah wa muhammadan rasulullah day mel lépp jaay na ko yàlla yàlla ñu ko jaay nag su ko soobee mu laaj la bàkkan bi ndax moo ko moom su la ko laajee faaw da nga ko koy jox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 salaatu ak asaxaabatul kiram ñoom seeni bakkan moo waral xare yi nga dégg ñu daa ko xare badar uhud xandaq tabuk muta bani mustaliq ila axiri yu bare bare bare yoo yu bare bare bare des na ca waaye bakkani yéefar yu bare bare bare des ca su dee suñ jamono nga xam ne xëy na laajuñ suñu bakkanit te tey ak yow gëm ne yàllaa ko kon lépp da koy delloo ci yàlla lépp luy dellu ci sa jëmm ngi sa gannaaw sa pas-pas sa xam-xam sa liggéey sa rafetu xel sa lépp nga delloo ko ci yàlla loolu mooy kon jeexaat ci yoon yàlla ci sa bakkan bu dee ci sa alal ki nga xam ne alalam lépp ci yàlla la koy delloo bu dee bañ laajee bakkan ya ka daan def alalam ci luy tax xare ba yéwén su dee bañ laaju bakkan ya kay jëlaat di ko delloo ci yàlla nga xam ca tabax ay jumaa wala ay jàkk walla ay jàngukaay walla di ca taxaw ñu jàng ñu jàngale kay def ni ñu ngi jeexaat ci yoon yàlla ci àllalam kon boobu mooy anam gi njëkk ci liggéeyal yàlla ci tënk bu yaatu yaatul nag ba ko ñaan mu liggéeyal yàlla liggéey jëm ci mbooloo mi mooy jëpp jëf joo xam ne ba mu koy jëf yàlla tax waaye jégleeloo ko kenn ngir ngir li jariñoo la defar yoon woo xam ne ñépp a jaar ngir yàlla bënn forage boo xam ne ñépp a cay naan ngir yàlla tabax fajukaay boo xam ne ñépp a cay faju ngir yàlla tabax jaamukaay boo xam ne ñépp a cay ngir yàlla loolu suñ delloo ci alxuraan sunu moom tuddee al ihsaan al ihsaan xam nga baatu xidma ñëwul ci alxuraan waaye al ihsaan mooy tekki loolu loolu suñu wax ne inna llaaha yaamuru bil adli wal ihsaani wa iitaa'i dil qurba yàlla dafay digle maandu waaye dafay digle itam eh, ihsaan mooy jëfal yàlla ci ay jaamam mooy jëfal yàlla ci ay jaamam maandu mooy képp koo jëflante nga jox ko xàq ba mu sëkk ba doo ko tooñ dara lu néew néew soo matalee xàq bëggu bëggu ñooyam fa dañu bëgg dolli ko ci leen lu lu xàq loo xam ne ko ci dolli te du xàqam ñu tuddee ihsaan mooy def lu baax lu la warut ci luy jëriñ ab jullit loolu mooy ihsaan suñu borom di gën a ay yiw yu màgg màgg màgg ñoo ko def lilladina ahsanul xusna wa ziyaada wala yarxaqu wujuhum xadan wala dilla ulaayika ashaabul janna hum fiha xaalidun suñu borom yàlla ñu koy jëfal ci ay jaamam ñuy def ihsaan di ko jëmale ci jaam ñi yàlla daan leen faye aljanna ak leneen ndollan bu raw aljanna alxusna mooy àjjana ziyaada mooy lu raw àjjana loolu mooy lan taw féexale gëm leen taw féexale ëllëg ñu jàkkaarloo gis gis ko ci seen seeni bët te gis yàlla moo dàq foofu aljanna maanaam bànneexub aljanna bànneexub gis yàlla aljanna mu tut askan yi bànneexub gis yàlla aljanna la neex neex neex la bànneex ba bànneexu àjjana moo tax asakay bànneexu gis yàlla te ñi ko jëfe ay jaam nag suñu doon daa leen fayal loolu ëllëg te it bu ñu teewee ci kanamu yàlla ba ñee doon yàlla ñi daa jëf ay kabaayir suñuy tiit ba seen xar kanam bu ñoom ñoo ñoo duñ ca bokk ndax ñoo àjjana lañu tàbb lañu sax ba faw moom la seen waa doon nekk ca ca masaalik di wax ne suñ ba nga xam ne mbugal ma tar na bis benn ci agsi na tiis ya taxaw tiit ya taxaw jafe-jafe ya taxaw njàqar ya fees dell dana am ko woote ne ana ngi daay liggéey jëm ñi te te te yàlla tax ana ngi daay jëfe ko ne ko noonu nii mu ne nii yéen ñoom fitna yeeg jafe-jafe yeeg xat-xat yeeg tàngoor yeeg lépp yéen bokk la yéen yéen moom dem leen léegi tàbbi aljanna nga gis ne kon euh, jëfe yàlla cee jaam bokk la ay payam la ca gën a euh, bokk na ca bokk na ca tàbbi aljanna gannaaw nag pay nga xam ne suñu doom ay ay ay ay ay ay ay ay yu bari la ca dig waaye loola ca la bokk muy aljanna ak gis yàlla ëllëg kon loolu lu màgg màgg la ci tënk ba ko ñetteel nag mooy liggéeyal yàlla ci nitub yàlla mooy ni sëñ Tuba def ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala nga ne mooy ñun taalibe ni ñu def ak sëñ Tuba sëñ Tuba am na noonu la def ak yonent bi sallallahu dafa njëkk a jaayante ak ñun jaayante dafa bokk ci ponk lislaam yi ba suñu borom yónni yónni saa suñu woote la ko mu woote ba mbooloo gëm ko ba jullit ñi bari la ko suñu borom jox ndigalal jaayante ne kon na ñi gëm yàlla nañu jaayante yow suñu borom doon doon nangu seen ngëm bi yépp jaayante suñu borom ko ñu jaayante yow yàlla lañu jaayanteel te yàlla nangu na seen jaayante ko wee yéen suñu bàyyi on innama yubaayi'uuna llaaha yadullaahi fawqa aydiihim waxaat ne yàlla gërëm na way gëm ñu keroog bañ jaayante yooyu ca roon garab ga moo tax suñu baa bi ñu jógee la mu njëkk def mooy jaayante jënd bi salaa salaam baaya'tuhu fil bahri tahta shajara wal bahru musbidun wa hawlil fajara jaayante naa ak ñun ca géej ga ca roon garab ga boo géej ñuy jàngee du su saay saay sa yoon moom ñu tubaab yi ñu ñëw ci abdu saalixiin muy gànnaar waxaat ne baayaatuhu fil barri taxta shajara wal jawwu tayyibun wa xawlil barara jaayante naa ak yeneen yu saasan ca jéeri je ca noon garab ga moo jaw jaa ngi sell sell ñu baax ñëwoon muy taalibe yi naar yewoon foofa kon jaayante gi kon foofu la tàmbalee ak jaayante yéntu saaslam fekk dafa njëkk jaayante mu ci xolam baayaatuhu bi fuaadi xiina lam tarahu ayni wa axdimuhu lillahi muftarida jaayante nag moom ci sama xol ba ko samay bët gisagut ma di ko liggéeyal def ko def liggéey muy farata ci man baayaahu alxalbu ma al aqlaami ka misli bayaati al al alaami dama jaayante moom comme na saxaaba yi jaayante sama xol ak samay xalima baayaatu xayral bi salaa salaam nekk ca ba wet ba muy ne ca tumuranke ga waaye am yéene na almuhaajiroon ak waa ansaar jaayante woon ma jaayante mu noonu liggéeyal ko dañ ko liggéeyale kon saa kon ni jaay ko def ko mu wasilaam moom rek dox dox li digga mu boromam ala alladi taxadtuhu wasila laka wa ahwa fi'lahu wa qila ne kon mooy wasilaam yu ko jàpp dox ko digg digg diggal eh, di ko roy nag ci lépp ci waxam ak jëfam ak léppam eh, ca lay xamil xamle ne amul benn wasila wu dul moom nag ما لي سوى المنتهى للمالك الوالي وسيلة وكفاني كل أهوالي أم بن وسيلة المنتهى عليه الصلاة والسلام تسمى برام تي بينما فقل ما يتم بيبنتين لا أبتغي غير النبي وسيلة وفي العدا وجه لي جميلة يعني ساكم غير وسيلة المنتهى عليه الصلاة والسلام te fegal na ma itam noon ya te jëmale leen njëkk ci man zahara li anna rasulallahi wasilati xadan ila al ilahi baara li kulli man loo maqulu an wasilatu wa rasul waxi na ko nu ne kon noonu la jaayante ak moom daal di fas nag di ko liggéeyal ko liggéeyal ko gannaaw bu mu ko laltaayee ak cofeel soppe ku mu ko kenn mu sa soppi def ko ak njot ci léppam yami euh, fadaytuhu law kaan yufda bi dami wa bi lisaani wa yadi wa mi soo ko ñuy jot la kon ma jote ko sama deret jote ko sama làmmiñ sama loxo ak sama ndëgg ak sama lépp dem bay wax ni su su deretam naree génn na sama deret génn wuutu deretam su naree wéri dinaa ko wéri li tamit wér benn dami fi a dami fidaun li xuruji damihi wa maradi fidaau daa i jismihi loolu kawe kawe la ak cofeel génn cofee àgg foofu dami wa ahli wa awlaadi fidaau la abdan xadim la muskaan yi sanda kon noonu la ko noonu la ko bënge woon euh, laltaay bëgg googu nag ci xidma bi ñu ko doon defal xidma bi nag lu yaatoo yaatu la walla ci ëpp na ci mbind la jëm la ci jiitu mooy dundal sunnaam ci di ko dund di ca yare waaye di ko liggéeyal ci di ko tagg ak di julli ci moom ak di ko jubbatee mbooloo denteeg ci aw yoon ci anam yooyu la liggéeyal yéntu saasam ci bi ñu nekk ci réew mi ànd ak mbooloo mi waaye nag xalimaam di ko liggéeyal bi bi nga xamee ne yóbbu nañ ko ci géej gi ndektu mbooloo mu di ko liggéey ci xalimaam ci tagg ak di julli ci moom ci at mu nekk juróom-benn yooyu tagg juróom-benn yooyu julli suñ dee israel gën ci yaata yaa am suñu mën dimbale man defal tawfiq xëy na ci ak njëkk te saxal na ci daa def mu dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa nangul suñu taalibe asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu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 الحمد لله الذي جعل هذه الصلوات من ابن الإسلام ركنا سيدا وأودع فيها من أسرار المناجاة ما يجد حلاوته من أراد به رشدا نحمده تعالى ونشكره الحمد وشكر من لإقامة قواعد الإسلام هداه نسأله أن يجعلنا ممن قال بأقوال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع هواه هداه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 على الرسول عليه الصلاة والسلام في عالم السماء فأعظم بها من عبادته ينادي العبد فيها مولاه وناهيك بها من طاعته تكفر ما تحل تخلل بينها وبين أختها من ذنوب العبد وخطاياه فأقيموها في أزمانها المعينة وأوقاتها فاصبروا على إحكام أحكامها وإتقان طهارتها أيها الناس من بادر إلى طاعة الله ولزم تقواه فقد فاز ومن آهى محبة على محبة كل ما سواه نال منه قربا وفقنا الله وإياكم وتقبل منا ومنكم آمين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 شهادة نجد بركتها يوم يجمع الأولين والآخرين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما نكون بهما يوم الفزع الأكبر من العالمين أما بعد فيا أيها الناس أن الله تعالى قد عظمت منه منه علينا إذ بعث أسرى رسله إلينا فجاء من الآيات المحكمات والأحاديث الصحاح البينات ما أوضح لنا السبيل وأبان به لكل عاقل مبين أما الدنيا وما فيها خيال وسراب وأن ما فوق التراب تراب وأن الآخرة هي دار القرار فتوجهوا عباد الله إلى حضرة الواحد القهار ودينوا على الاستغفار وسبحوا بحمده بالعشي والإكرام اللهم اجعلنا ممن يستحي منك دائما حق الحياة وآمن روعاتنا في الممات والمحيا اللهم اغفر لنا بمضلك ذنوبنا واستر برداء حلمك عيوبنا وعاملنا بما انت اهله ولا تواخذنا بما نحن اهله يا عفو رحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين امين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 الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 Allah الله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 في جنة عالية لا تسمع فيها نافية فيها مذكر وما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إياكهم ثم إن علينا حسابهم الله الله هب لنا asalaamaaleykum.